lieu bi c'est pas important parce que y a des prisonniers en résidence surveillée donc xool leen contradiction boobu je suis pas un juriste nag suis un scientifique mais damay analyser rek ñu nee suñu day constituer prisonnier dañuy dañuy recommencer le jugement procès bi dañu koy recommencer mais il est déjà prisonnier d'autant plus que bi ñu bi ñuy wax contumace le mot là ne devait pas même exister ci jugement bi parce que loolu mooy ku ñu xamul je pense je suis pas ku ñu xamul foo nekk nga daw moom lañ lay moom lay mais pas ku ñu ne kaa ñu àttee la nga bañ toog sa kër loolu beneen la loolu naka lañ koy àttee ñun juriste yi dañu war a dimbali ci loolu l'un dans l'autre li ma wax Omar mooy toutes les grandes guerres du monde se terminent autour d'une table mhm. fii mu nekk Sénégal aussi bien sonk que Macky Sall war nañu jox jàmm sénégalais te ñoom ñaar rek ñoo ci des fi mu nekk. Mm-hmm. les prisonniers loolu yëpp day ñëw c'est une suite c'est une ça sera une chaîne mais je je n'explique n'exclus pas aujourd'hui ñu may Sonko defaraat procès bi c'est possible pourquoi en en en moins de peut-être euh, moins de deux mois mais comment possible fan lañ nar a jaar pour. ni ñu mën a jaaree ba moins deux mois Karim Wade bi nga mais Karim Wade kan la tooñ. Karim Wade sénégalais yëpp la tooñ cent trente huit milliards des contribuables sénégalais lañ koy accusé cent trente huit milliards mooy lan mooy yow dañuy tijji sa kalpe jël fa xaalis ñun ñii ñëpp ñu jël suñu xaalis. mais tonton jugement boobu nag xam nga nag procès Karim Wade bi nag CREI moom vraiment amul benn sénégalais bu ci daan. moo tax ma ñëw moo tax ma moo tax ma ñëw dara dara dara normal. juridiction d'exception vraiment ba pare. je je continue je continue je continue. ba pare aussi au moins tëdd na ñetti at sax moom. ma ne mën nga may ma continuer. oui bien c'est là où ma jox la. Ah, alors nga xam ne nii moom dafa ne. Ah, moom moom seul argument de défense mooy. ah man kat waa xalifa euh, est-ce que xalifa yow yaa sàcc un milliard trois nga ni waaw du man donc. gis nga fii ñu toll. mais xalifa kaaw xalifa moo gën a garaaw. tëdd na ñaari at. waaye kii kii ma dafa toog jàkkaarloog moom àddina. ne carrément ñu ne ko justice euh, euh, euh, te moom ñaar yi ñu toppee yëpp ñaar yëpp bu bu toogoon këram du am ndaw see xale bee saar moo jóg dem dàmp moo jóg kenn complot ko kenn kenn kenn kii ko fii ah, en passant en passant fii xam nga xam nga le charme <laughs> le charme de ce plateau mooy c'est ça le débat démocratique le charme de ce plateau mooy différentes expertises différentes euh, expériences ñoo fi toog ku nekk ak sa xel moo tax je vous conseille tous les candidats déclarés war nañu ñëw toog fi Ndoumbé laa dañuy ragal li nga ñeme ñu bëri ñeme ko war nañu toog parce que sooy laaj réew sooy laaj réew toutes les audiences sooy laaj réew toutes les audiences da nga war a toog soo ko waxee ne kaay toog waxtaan ak mu dem bugaan boo ko yee quatre bu ñu mais candidat ñi de non xam nga sooy laaj réew sooy laaj réew sooy laaj réew sooy laaj tous les Sénégalais. et ça c'est excellent. Et audience buñ la woo da nga war a dem. parce que c'est des Sénégalais mais euh, amul loolu loolu kuy live du ko def alors te te ce plateau là est très riche. parce que gis nga saa waay ji expérience bi ma su ma jarbaat la su ko neexee sax ma noppi mu wax. non non non non <laughs> monsieur Sow dinaa dinaa le suivre bu baax <laughs> et puis contradiction bi am fi mais c'est ça le charme de la démocratie. oui c'est ku ci nekk ci ñun ñi position différente. xuloowuñu xeexuñu mais on ñu ngi débattre. Mm. mais le le dernier mot revient à à kii. les spect téléspectateurs les sénégalais. loolu moo charme bi. nee mm. ne fi ñu toll ni tout est possible. président dafa am pouvoir. Mm. yàlla daf ko jox ay prérogatives yoo xam ne. suñu atte ba noppi ba juge bi wax le lendemain mun na ne baal naa ko ñu génne ko même su reyee nit rien n'est impossible président war na tijji ay buntam def na appel bi na bàyyi menace yi donc tout dépend maintenant du président de la République et de Sonko aussi Sonko on lui demande de se taire voilà c'est on lui demande ça Sonko euh, on lui demande de modérer son langage il, il parce que la guerre est fini terminé. oui amatul Sénégal fii mënatul tàkk. il peut pas takk tàkk. il xam nga Serigne Touba Serigne Touba bi muy ñaan. Serigne Touba bi muy ñaan ci dëkk bi. ak El Hadj bi ñuy ñaan ci dëkk bi. Euh, Omar Faye wax na ko Omar je le connais c'est un combattant depuis 2008 man suma premier financement bi ma def caare ji ji do kaw premier financement des femmes Omar mii moo nekkoon euh, moo ko moo moo doon invité d'honneur bi. Mhm. là c' était en 2008. Mm. moom dafa mus a xeex. ci ah. wetu askan bi. et je salue ça cette continuité a changé maintenant. non il n' a pas changé il n' fi ñu toll. fi ñu toll li may ñaan. mooy ñun ñëpp nañu dal. i inclus Sonko. Sonko ñiy wax ak moom nañu wax ak moom. adduna du doxee noonu. adduna déggloo éññee yi sax dañu ne. enterrons la hache de guerre guerre day terminer léegi ñun ñëpp nañu wax ci loo xam ne aujourd'hui Sénégal de dellu nekk jàmm rien n'est impossible au président de la République su ko neexee la semaine prochaine mun na def condition yoo xam ne soit dañuy def procès bi mu continuer soit mu am ñoo xam ne mun na leen yebal. ñu waxtaan ak Sonko mais mais tonton moom il faut dugg ba pare. non <laughs> ah, mais président président xam nga xam nga réew mi. mais dugg na parce que résidence surveillée ah, mais mais mais mais non xam nga xam nga réew mi. gis nga troisième candidature bi Macky Sall wax na wax rafetlu nañ ko mais li ñu ëppal solo c'est la consolidation de hmm. l'état de droit. Mm. Et ça passe par quoi cette consolidation de l'état de droit, Omar? Qu'il y ait des erreurs ou pas, ça est là à chaque fois. <coughs> Il y des erreurs. Mais aujourd'hui, il faut pas frustrer la justice de notre pays. Suba nit dina dee, nit dina ray nit. En fragilisant la justice moo taxaw ñu acquitté ko. Parce que dañ ne ñii dañuy fontoo. On peut pas juger quelqu'un, condamner ko bàyyiwuleen ko pare nga bëgg a indil ñu keneen ko tëj ko def. moo tax il par quel compromis et ce même compromis bi lenn rek la il faut la décision soit respectée s'il n'est pas respecté que Macky Sall que Macky Sall démissionne. absolument. dans les médias et son gouvernement bu duggee nag tey bu duggoon bu ñu la décision de justice. oui là maintenant on peut na am na par exemple. le le juge n'a sa décision a été respectée. oui et là maintenant on va essayer de comment on peut faire mais loolu il faut. moom moo gën demain. pour qu'il y ait discussion entre les deux. il faut que la non mais xam nga xam nga loolu mooy wax ji. il faut mu dugg. loolu loolu mooy wax ji que wax ji am ne fi. mais tey situation bi ñu dund nii. situation bu mais et c'est humiliant bu mën a jur loo xamante ni ne si réew man par exemple man tey am na beaucoup de gens qui sont si on les convoque à la gendarmerie. ils viendront pas la police et tous les prisonniers qui sont yenn police yi. am na ñoom duñ ko nangu da ka ñu jugé tëj ñu. ñu ñu mesure prudence. bu loolu lay anarchie moo fi am. donc nit ñi wax yëpp gis nga. Mhm. dafa am ñoo xamante ne dégg naa boo waxee ñu saaga wala rek gis nga fii ay intellectuels yoo xamante ne ay tabbat ñoo fi ne. waaw ah. dañuy gis dëgg. xam ne lii mooy dëgg ñu di ko raay parce que dañ naan noo wóorul. terreur rek wóorul amu fi. réew mi moo ñu solo soxal. rek réew tey li Macky Sall yor réew mi yëpp il a perdu les grandes villes. les députés tey aujourd'hui à l'Assemblée nationale il y a plus de combien députés. Mm-hmm. benn député la ko ëppale. donc le peuple est conscient de ce qu'il fait. Mm-hmm. à ce titre maintenant il faudrait pas que la justice de notre